saytu ñu yore réew loolu leer na de yaa ngi waxoon ko kenn du ma joxul majorité sama seen kàddu yaa ngi waxoon état fu ñu koy saytu mbir yi leer sama seen kàddu yaa ngi waxoon opposition la ñuy jox majorité sama seen jamono bi toll nañ foo xamante ne nii ku ci nekk da nga war a xool dëkk bi fi mu toll ci yow mu bañ a doon problème de personne mu bañ a doon problème d' intérêt personnel comme ni ñu ko waxee et je pense que suñu waxee intercoalition mooy wane ni ñi ko ànd ñëpp def ko benn objectif la muy que réew mi jëm kanam moom mi ne dañuy jàppale ba ci suñu sag la moom mi bu ñu ko jàppale suñu sag la moo jàpp ne gëw bi moo jàpp ne ñëpp loolu laa mën li ma ci wax la tax ñu démarrer tey dans la ville du ma wax sax ñu commencé ci ville bi mais mooy suñu caravane yoo xamante ni mën naa ne du caravane mais mën naa ne comme ni nga ko waxee porte à porte la parce que dañu jàpp ne te loolu mooy li nga xamante ne nii moom la ñu war a def mooy dañu war a dem waxtaan ak askan bi d'abord euh, wane le bulletin loolu am na solo mais aussi wax leen lan moo war a tax ñu wote pour coalition sàmm sa kàddu intercoalition sàmm sa kàddu takkuwal ndax ku ne xam na ne contrat de législature suñ ko dee wax mooy nan la ñu war a fexe ba suñu amee majorité ñu am ay loi yoo xamante ne ni dinañu ko voté mu am impact ci askan wi mais loolu dafa ànd ak d'abord xam-xam dafa ànd d'abord ak li ñuy woowee diagnostic mooy jàngat dafa ànd ak xam exactement lan mooy loi buy am impact ci population parce que ñu bari gis nga leen surtout le premier ministre Ousmane Sonko moom campagne mooy xaste mënaase wax dinaa tij jiw wax ay waxu rapport boo xam ne dafa am ak sécurité nationale euh, ak tey jii dégg naa ko mu ne ku leen mbéj fayu leen xam nga loolu jàpp naa ne ci kilifa euh, ba pare nga ne da nga bëgg majorité à l'Assemblée nationale pour doxal sa programme je pense que kooku mi ngi ci leneen lu dul contrat de législature ñun nag yàlla dafa def ñu amoon loo xamante ne nii ay loi yoo xam ne dañ ko wote te jàpp nañ ne am na impact ci population bi d'abord damay fàttali ne en 2012 li nga xamante ni moom la ñu njëkk a wote mooy loi boo xamante ne ni dafay wax transparence ci wàllu finance publique loolu dama koy fàttali euh, ba pare di fàttali ne wote nañ lépp loo gis tey muy ay loi yoo xam ne transparence la par rapport aux finances publiques damay fàttali ne loi nag muy déclaration de patrimoine ñun suñu législature première législature moo ko woote li ñuy wax wàllu criminaliser vol de bétail ñun ñoo ko woote li nga xamante nii mooy ay loi d'orientation yoo xamante nii am na carte d'égalité des chances boobu ci ñun la jóge beneen bi nga xamante nii mooy wàllu santé lu ci bari am na loo xamante ni c'est des lois yoo xamante ni suñu législature yi ñoo ko woote beneen bi mooy euh, ñun nekkuñu assemblée nationale euh, ñu yónni ñu fa ñu def fa troisième législa trois législature maanaam ñett ba pare génnewuñ fa ak xam-xam bu wér boo xamante suñu waxee sénégalais yi dégluñ man dama bind téere boo xamante ni dëgg la wax naa ci fi ma jaar mais lépp loo jot ci lu mat ay ñetti téeméeru loi yi ñuy wote yëpp mu ngi ci biir téere bi moo wax exactement loi bu ñëwee assemblée nan lañ koy càmbare nan la ñuy euh, fexe mu am impact ci population yi mais aussi fi mu war a jaar lépp procédure bi de la commission à la plénière ba pare wax exactement ni nga xamante ni moom la député war a comporté woo loolu yëpp ñu tënk ko ci téere xam nga loolu soo gisee ma koy wax mooy ñun am nañ euh, xam-xam ci législature am nañ expérience ci législature dëgg la bi ñu amul école bu ñuy jàngee législature comme amul école boo xamante ni dañ fay jàngee ministre ak président président ak premier ministre mais jàpp naa ne bu fekkee ne yàlla daf la jox ay responsabilité da nga war am euh, li nga xamante ni moom mooy oyof boo xamante ni di nga laaj ñi xam boo xamul mais tey ji ku ne xam na te loolu dafa terre à mooy huit mois yi ku ne xam na ne réew mi dellu na ginnaaw yaakaar bi xale yi amoon yàkkeeku na parce que nag aussi soo gisee nguur gu bees ñëw xale yi gën a dem di dee ci géej gi loolu mooy amuñu yaakaar parce que la nga xamante ni moom lañ doon yaakaar ba tax ñu voteel Bassirou Diomaye Faye xaw ma ak Ousmane xaw ma sax kan lañ ci woteel parce que kenn xamul kuy jiite réew mi donc loolu moom mooy wane ne yaakaar bi yàkkeeku na muy benn beneen bi mooy lépp loo xamante nii ci wàllu investissement la tey jii gis nañ ne investissement bi wàññeeku na parce que boo seetloo ñi ngi wax waxu déficit mais xam nga déficit bu fekkee ne par exemple yow say bopp li nga xamante nii da nga koo euh, natt nga war ko am ci alal ci ay koppar mu war a jóge ci budget parce que budget du loo xamante nii kees la boo xam ne dañ fa denc xaalis mais ay prévision la yoo xamante nii ay recette la yoo xam ne danga koy prévoir ni lii war naa koo am parce que sama koom-koom nii ak nii ak nii la tëddee mais tey jii gis nañu am na 400 milliards yoo xamante nii problème de recette la boo xamante nii waroon nañ ko am amuñu ko lu ko indi mooy cuune lambatu ak ñàkk xam foo jëm jàpp naa ne nag loolu bu fekkee ne par exemple continuer na mais mën nañoo dem ci guute goo xamante ni duñu xam fan lañ koy waxe loolu muy lu am solo loo xam ne war nañ ci wax beneen bi mooy gis ngeen atel ñuy wax ne ñi ngi artu parce que am na vaste euh, préparation de fraude électorale parce que ñoom gis nañ ne askan wi bàyyi nañ leen gis nañ ne mën nañu am mbetteel goo xamante ne ni du doon mbetteel sax parce que xam nañ exactement lan mooy la ressenti des population ñu ne léegi ñoom la ñu waxoon lépp parce que je pense que loolu moom mooy seen marqueur maanaam wax lu dul dëgg à commencer par le premier ministre parce que moom lu mu la wax du dëgg loolu mooy la vérité parce que tey ji boo gisee way bu xale yi way mooy lu mu wax du dëgg c'est ça la vérité donc jàpp naa ne moo tax tey ji mu waxoon ne transhumance comme ni ñu koy waxee parce que transhumance aussi boo xoolee dans le petit Larousse ci tubaab dañuy wax ne le bétail boo xamante ni moom mooy dem de l'autre côté donc transhumance du yëfu nit d'abord parce que pour man transhumance du yëfu nit comme ñoom jàpp nañ ne loolu waruloon am tey jii ñu gis ne askan wi bàyyi nañ leen ñu ne nañu jéem a fexe benn vaste campagne de transhumance boo xamante ni ëllëg élection yi ak nu mu mënti demee dinañ mën a préparer une fraude électorale mais loolu jàpp naa ne ñàkk a xam sénégalais yi ak ñàkk a xam Sénégal ak détermination opposition moo tax ñu koy xalaat parce que jàpp naa ne. tey jii képp koo xam ne sénégalais war nga jug am taxawaay boo xamante ni élection yi dina am des ci dal mais aussi ci transparence boo xamante ni daf mucc ayib donc lii lépp moo tax ñun ñu jóg dem ci askan wi waxtaan ak ñoom wax leen exactement lan moo tax ñu war a voter sàmm sa kàddu beneen bi nga xamante ni moo ci gën a am solo mooy nit ñi dañu fàtte seen bopp maanaam kenn nekku fi naan man maa bëgg falu wala man a wala noonu non dañu ne lépp képp ñi nga xam ne ñu ngi ci opposition bi parce que tey dafa am intercoalition takk wallu ak sàmm sa kàddu ñuy voté sàmm sa kàddu bi nga xamante ni moom la Barthélemy Diaz nekk mooy suñu bulletin bi ñuy voté loolu li muy wane mooy nit ñi dañu renoncé wu ci seeni privilège personnel pour mettre au devant de la scène li nga xamante ni moom mooy euh, bëgg-bëgg askan wi bëgg-bëgg askan wi nag du leneen lu dul ñu dund gi wàññeeku du dara lu dul coupure yi mën a dakk du dara dul xale yi am perspective boo xamante ni dañ mën a am liggéey du dara lu dul li nga xamante ni mooy secteur BTP bi nga xam ne rey nañ ko ba xale bu ci doon liggéey tey nga nekk maçon manœuvre wala leen tey ji amatoo liggéey boo def parce que dañu arrêté tous ces chantiers là te jàpp naa ne réew bu ñu la ko joxee c'est pas pour que ngay rey ay emploi wala ngay rey ay entreprise mais c'est pour nga suqali entreprise yi pour que xale yi mën a am ndaw liggéey am mën a am liggéey dégg naa nag fi mu nii dégg naa sax si ñoom seen kàngam yi comme ñoom fi mu toll nii jaaxle nañ ñu ne léegi il euh, n'y a de transhumance c'est des soutiens ñoom kan lañ yàpp ku ñu yàpp parce que lan mooy trans mais yow ku jóge fii parce que perte nga nguur gi dem feneen loolu du transhumance soo amee beneen moo nga wax ma ko donc je pense que ñoom bu ñu yàpp sénégalais yi parce que ñoom comme jàpp nañ ne ñoom comme ni ñu yàgg di def di manipuler sénégalais yi comme man yàgg naa leen wax ne leen réew soo waxee ba ñu jox la ko kàcc ba ñu jox la ko doo wax walla kàcc ba defar ko c'est ça la vérité il faut que nit ñi indi dem ak seen xel aujourd'hui man dama jàpp ne te yàgg naa ko wax xam nga man souvent nit ñi dañuy wax maa jaaxle parce que diw dem na man jaaxal kenn jaaxalu ma ci parce que dama jàpp ne ñooñu dem ñëpp ñi ngi àndoon ak ñun ci élection présidentielle ñu gagné mhm. mën naa bu ñu demee ñu gagné mhm. loolu mooy la vérité donc moi je pense que il faudrait que nit ñi xam ne ñii dañu yàq la morale politique ñii dañu yàq li nga xamante ni moom mooy dignité dans la politique parce que gis nga politique euh, c'est pas politique mën na ànd ak dignité politique mën na ànd ak morale politique mën na ànd ak gëm-gëm man gëmuma ay woy bloc mais Ousmane Sonko yaa ngi gis xale yi di ko wayal chaque jour moom moo ko wax ne kuy wax ne opposition bu ñu ko joxee majorité day bloqué assemblée waxu dëgg nest pas moom moo ko wax noonu donc je pense que il faudrait que ñu xam ne intercoalition bi nga xam ne APR daf ko bokk bokk ko ak PDS bokk ko ay le bloc des libéraux bokk ko ak les sociaux-démocrates waa sàmm sa kàddu pur bu Serigne Moustapha kenn xamu leen bu ñu waxantee dëgg ci caaxaan arc agir bu taxaw ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk ci yenn société civile yi je pense que ñooñu bu ñu booloo Sénégal war nañ xam ne caaxaan taxu leen a jóg.